ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمير يحمل أسفارا bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al-azim ñu ngi fii ci barabu yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci almadina almunawara bi anwaarihi sallallahu alayhi wa sallam di dugg nag ci buntu ma xam ne eh, dugg giñ ciy dugg tombeeg ñu ne fii doy na dal xel yonentu sallallahu alayhi wa sallam dafa gëmoon gaaf gu rafet muy buntu tawasul ñu war a def tawasul ci moom ba pare fekk ñu ngi janoog moom sallallahu alayhi wa sallam ci kanam jumaam ju tedd ji kanam rawdum bu sell bi alayhi salaatu wassalaam niñ ko waxee dañuy jéem a eh, dégg nga citer les grandes lignes pour kii seetaan am idée ci bunt bu nekk ci bunti burde yi de bunt bu nekk ay waxtu mënu koo firi sàkka ay minute ay waxtu mënu ñoo firi bunt ci bunt burde rawatina ay minute nee na xadamtuhu bi madixin astaqilu bihi dunuba umrin mada fi lcheri walxidami xadamtuhu maa ngi liggéeyal yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam xadamtuhu liggéeyal naa rasulullahi bi madiixin ci tagg goo xam ne astaqilu bihi danaa ca xàccee zunuba umrin bàkkaari dund goo xam ne mada weesu na fi shicri ci way wal xadami ak i liggéey wala wal xidami muy jama xidma nee na way gi may way yonantu ak tagg gi ma koy tagg lenn rek laa ci jublu tuub bàkkaar yi wëy yi ma daan wëy keneen ak liggéeyal gi ma daan liggéeyal keneen pour imam Buusiri bàkkaar a nga yem ci wëy ku dul yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bàkkaar a nga yem ci service booy servir ku dul yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu tax mu ne qalla daaniya ma tuxsha awaaqibuhu ka annani bihima hadyun min annaami ya ma daan jëlee ci woy yi ma daan woy buur yi ak boroom barke yi ak liggéeyal yi ma daan liggéeyal ku dul yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa ma jëmee boo bëggee xam na mu dangereux ak la ma ca daan jëlee ni mu ma mën a naxee mu ne mi ngi mel ni rekk xët yu bu ñu dégg nga ràngal ràng gu rafet mu foog ne dafa gën moromam ñi wala dañ koo gën a fonk pour bañ mu rëcc wala pour bëgg ñu xàmmee ko pour mu gën a dund te xamul ne yee yaay dañ koo defal xàmmeekaay googu ngir lan moom lañ war a rey ci aj gi mu ne boo dee servir keneen ku du yonent mbaa ngay def loo xam ne mbirum àdduna la la nga cay am jamono ja nga koy am dafay neex loolu lay jey waaye boo xamoon fa mu la jëmee boo xamoon fa mu la jëmee mu ne adaatu gaya siba fi lxaalatayni wa ma xasaltu illa ala al adami wannadami man ataatu damaa toppoon rek gaya siba mbewte ndaw fi lxaalatayni ci ñaari xaal yëpp nag mooy xaalatu shaar ak xaalatu alxidma wa ma xasaltu te jëleewuma ca illa ala al adami lu dul ay bakkaar yu bëri wannadami ak réccu waaye réccu dafay fekk jëf wees ndaw mooy fi nga amee kàttan fi nga mënee fi nga rafete fi nga fi nga fi nga fi nga mën a defee lépp waaye nag boo moytuwul rek bu rombee nga réccu ndax def ca loo war def dafay yomb ndax yi lay jey ci kàttan ak ci taar ba bari mu ne fa yaa xasaarata nafsin fi tijaratiha lam tashtari diina bi dunia wa lam sama bakkan moo bon nim perta maanaam commerce bi sama bakkan di def commerce bu ko gën a bon amut lu tax mu ne commerce la boo xam ne sama bakkan au lieu mu jël àdduna sacrifier ko pour diine waaye moom jëndut diine waxaalewu ko sax àdduna rek la toppatoo te wa man yabi aajilan wa man yabix aajilan minhu bi aajilihi yabin lahu lxabnu fi bayin wa fi selami ma xool nusxa boobu wa man yabix aajilan minhu bi aajilihi waaw kay wa man yabix aajilan minhu bi aajilihi yabin lahu lxabnu fi bayin wa fi selami képp koo xam ne jël na àllaaxiraam jaay ko jëndee ko àdduna nee na bu bés penc taxawee rek mu xam ne ndax nañ ko ci njaayum teew mu teew mi ndax nañ ko ci njaayom jëm dig mi salam mooy njaay moo xam ne danga joxe xaalis dégg nga te joxaguñ la marchandise nga def commande wala ngeen waxaale euh, dégg nga dat bi mu lay jox marchandise bi bu ci mën a doon rek su fekkee àllaaxira nga joxe jël àdduna njaay ma baaxut in aati danban fama ahdi bi muntaqidin min annabiyi wala xabli bi munsarimi yow da ñoo waxoon ne kat yaa ngi ci liggéeyal yonantu salallahu alayhi wa ba pare nga ne yow lii mu ne waaw nii laa mel comme dama fas yéene tuub dama fas yéene jox yonantu sama bopp yaakaar naa ne loolu dana dégg nga réparer lile dana réparer lile wala su fekkee ne sax liggéey bi ma ko war a liggéey liggéeyuma ko maa ci yi wax nii taxul ma ñàkk yaakaar in aati zanban su ma dikkee bakkaar fa ma ahdi déet sama kóllëre bi muntaqidi muy aji dégg nga fireeku min annabi sama kóllëre gi maam ak yonentu bi sallallahu alayhi wala xabli du caageen sama buumit bi mun sarimi muy aji dagg walla xabli du caageen sama buumit bi mun sarimi muy aji dagg walla sama kóllëre gi fireekuwul ci yonant bi sama buum gi takk ci yonant bi takk takk gi ma takkee ak yonant bi maanaam li may bon bon taxuma ma taxut ma ñàkk yaakaar ndax yonantoo tax loolu mooy lan mu ne fa inna li dimmatan minhu bi tasmiyati muhammadan wa waafa alxalqi bi dimmami sallallahu alayhi sallam fa inna lii naka ñeel na ma dimmatan kóllëre minhu ci yonantu sallallahu alayhi sallam bi tasmiyati ci tudd tuddee gi ñu ma tuddee muhammadan muhammad wa wata yonantu yàlla muhammad awfa alxalqi moo gën a mën a matal kóllëre ci bindeef yépp boobu moom awfal xalqi moo gën a matal bindeef yépp bi dimmami kóllëre maanaam sama baay tuddee gi ma tuddee yonentu yàlla Muhammad kóllëre tax te yonentu du fecc kóllëre loolu rek laa yaakaar loolu rek laa yaakaar loo yaakaar sama papa Muhammad la ma tuddee alhamdulilah ñun ñu tëdd Muhammad yëpp ñu ak tabaarakalla ñun ñi bokk ci xeetam rek ñu am yaakaar mu ne in lam yakun fi bu fekkee ne yonentu jàppul sama loxo yowmal qiyaam ah kon gën caa xam de waaw bu bu bu koy jàpp nag du ko jàpp ndax dama ko mérité de waaye daf koy def rek mu ne fadlan fadlan waaw daf koy def rek parce que moom baaxam àgg na ca xaashaahu an yuxrima arraji makaarimahu aw yarjial aw yarjial jaaru am nañu ah, kii raaji la bind waaye boobu ndee raaji boobu dafa yàqu aw yarjial jaaru minhu gayra muxtarami yonentu bi sallallahu alayhi jomb na ëpp na nga di ko yaakaar ba pare muy tas sa yaakaar ëpp na loolu yonentu sallallahu alayhi wasallam gën na màgg nga làqatu ci moom ba pare te doo doo am protection doo am protection ku làqatu ci moom am nga protection ku la gisati respecté la waaye ku yaakaar ci moom teraanga mi ëpp na mbaaxam ki ëpp na muy sooyal ku yaakaar wa mundu alzamtu preuve yaa ngi nii preuve baa ngi nii ci àdduna wa mundu alzamtu afkaari madaihahu wajatuhu li xalaasi xayra multazami baax na xayra multazimi baax na bi ma fasee yéene ne dootuma wéyati kenn ku moom kenn ku moom sama xalaat dootul produire ci benn œuvre bu jëmul ci yonante bi sallallahu alayhi lu ma defatee tagg ko ca laa fekk muy ku gën ci ku ñuy làqu pour mu xettali la waaw ca laa ko fekk muy ku gën ci ku ñuy wutee garantie ku gën ci ku ñuy wutee dégg nga protection waaw maanaam ba ma duggee ci yonent bi ba léegi fexe na ba génnee ma ci bàkkaar fexe na ma génnee ma ci ñakk fexe na ma génnee ma ci lu ne te ñu ngi ci àdduna wa mundu alzamtu afkaari madaihahu wajadtuhu li xalaasi xayra multasami ah te loolu nag du yem fii rek fii la ak fële mu ne walan yafuuta alghina minhu yadan taribat inna alxayaa yumbitu al fi ikami maanaam loo ñàkka ñàkk yiw bu mu tax nga ñàkk yaakaar ci yonent bi mu ne yonent bi boo koy comparé ak borom alal yi xam nga borom alal yi bëri pour ñu mën a dimbale ku ñàkk il faut que ku ñàkk ki am bras bu ko mën a jotal soxlaam ca borom alal ca mu ne yonentu nag loo ñàkk-ñàkk loo suufe suufe ba jàpp ne du la gis kenn du la mën a jotale ci moom bu mu tax nga ñàkk yaakaar mu ne gis gisuloo taw waxuma la suuf si nga xam ne dafa nangoo saxal ñax dafa nangoo sax ñax lay saxal waaye jaan ji sax daf cay saxal fleur wala yefuuta du faatal alxinaa ko minhu gu tukkee ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam yaddan loxo taribat bu takk suuf sa loxo takk na suuf ñàkk nga walla bon nga ba jàpp ne yow mënatoo baax bu mu tax nga ñàkk yaakaar ndax innal xayaa taw yun bitu dafay saxal al azara fleur yi fi la akame ci janji janji bu mënee sax taw te yonentu sallallahu alayhi wasallam mooy tawab àdduna ci bépp yiw nag mu ne wala mu rit man de wa bëgguma zahrata dunia dégg nga poñaxitu àdduna nga koy firi waaw meññitu àdduna lëti bi nga xam ne tëtëfët witti na ko yada zuhayrin ñaari loxoy zuhayr ibnu abi sulma moo jur kaab ibnu zuhayr bi jël wéyoon uh, xasida ba njëkk a tuddee burda yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga kontaan ci woyu ba solal ko mbubb baayam nag moom uh, kaab zuhayr la tudd bu bokkoon ci ñi gën a fasaaxa ci arab yi gën ci am daf daan tagg benn buur ba buur bi ne ko euh, foo ma nuyooti rek maa la maa la yoreel nangam daf ko joxe jox ba mujj kaabu bu ñëwee dafay nuyu ñëpp ne nuyu naa ñëpp ba mu des buur bi pour bañ buur bi jox ko mu ne la kaabu daan jëlee ci buur boobu man loolu taxul may tagg yonent bi wala urid zahrata dunia allati iqtatafat yada zuhayrin bi ma athna ala harimi waaw la loxooy zuhayr ci meññit ya nga xam ne mu ngi ko daan wittee bi maa ca sababi la nga xam ne athna la doon tagg ala harimi ci harim ibnu sinan di buur loolu de loolu laay wut ci yonent bi tagguma ko ngir àdduna de donte bi ma ko commencé tagg ba léegi àdduna daf ma jublu waaye shafaatu rek laa soxla sallallahu alayhi wa